بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن اهتدى بهديهم إلى يوم ازدحام بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دل siwaat نوتي سنو مختصر بسخ سيدي عبد الرحمن Abdurahmaan الأخضري tay di sunu jotaayu ñaar fukkeel ak ñett ñu am yéene nafarandoo buntu bii di jàngale surutu salaat muy sarti julli sart defe naa léegi ku la ko wax di ko xam newun naa la ca ba ñuy jàng wa surutu tawba buñ la nee nangam nangamay sartam xamal ni lañ ni moom la ñuy sartal duñ ko am mukk lu dul dañoo am yay ay sartam ba noppi lañuy sartal du wér mukk lu dul ay sartam daa wér ba noppi comme nag duñuy bëgg dugg ci julli danoo bëgg a waxtaane ay sartam nga xam ni daa ko xereñe ba am ca bu wér ñu doog a dem nag ci julli gi lu koy tax a wér waaye buñ ko fi romboon moom ay sartam bëgg a dem ak yow ci julli directement du wér moo tax nii mu ko tegalee nii la war tegaloo sart julli yooyu la lañu am yéene na farandoo ko tey incha allahu taala moom nag nii mu ko tënkee dañu la bëgg indil tinkeem newoon la téere bi lépp ay tënk la waaye ay ku ñu ko tinkil tinki ba laa lay indil bu ma noppee door laa wax moom ni mu ko tënkee dinga xam ni moom daa tënk waaye bu ñu ko tinkee tinki ga ak lii mu tënk amuñu waroo amuñu wuute daa tënk ñu tinkil la rek pour tinkil la awalan dañu laan la danu naan la sarti julli ñetti façon ñi sart la waxuma ñetti sart ñetti façon ñi sart la julli am dañu naan sarti julli ñetti façon ñi sart la benn façon ba mooy sart yiy tax julli gi war la julli warul ñëpp xamuloo ni ñi mu war ñaan lanu lana tax mu war leen loola mat naa xam loolu dinaa la ko wax mooy benn façon bu sart bi ñaareelu façon bi ci sarti julli mooy sart yi koy taxa wér bu la waree ba nga ni ay ca naa jóg def ko dégluma ma dinaa la wax yeneen yoo war a am ba boo ko defee mu wér ñoom itam ay sart lañu muy ñaari façon amit sart yoo xam ni ñoom la ñuy tuddee sart yi koy tax a war wér sart yi koy tax a war wér yi boo amul waru comme waru boo ko defoon wéru la yooyu itam di ko dégg ci biir sart yi léegi bi ñu njëkk indi mooy sart yi koy taxa war yooyu la ñuy tuddee surutu bin faqat sàrt yi koy taxawar kese ñaata la buñ la ko laajee neel ñaar la ñaar yi may bëgg a wax nañ ko déglu ku ci dégg sa bopp julli war na la bu la waree nag boo julliwul te sariya neewu la bul julli moom mii naan la war na la bisa ngi ñëw mu la wàccee naa la ko ndax nangam ndax mbir sàngam fii néewu la wàccee naa la ko boo ko wàccee sa bopp yow wala sa papa wàccee la ko wala sa nijaay wàccee la ko wala sa borom kër wàccee la ko wala sa patron wàccee la ko wala sa sëriñ wàccee la ko boo dajeeg yàlla doo am lay sart yooyu koy taxa war ban ban la ba ca jiitu moo di al bulugh majeur ki majeur la julli war ki majeur la julli war kon génneel gone génneel ab dof génneel gone génneel ab dof ñi julli waru leen bu leen neexee bañ a kabar te yàlla du leen ci teg ay daan kon waru leen ki ñaareel moo di adamul ikrah gilli gi bala laa war mbaa kenn forcé wu bu la forcé rek waratu la bu ñaareel bii nag coow a ngi fi coow ngi fi ndax am na ñu ni ah la ikraha fi diini buñ la ci naree forcé kal kay euh, waru la bu la neexoon nga lànk ni man bu may julli taxaw leen bañ xam ni taxaw ñuy julli nga jóg julli ji mais am na ñu ni déedéet même buñ la forcé itam danga war a julli ndax jaasi lislaam a ngi nii léeg ñu daas ko ba mu ñaw lelli loosu kuñ julli loo mu lànk te boobu am na waxtu wii ñu doon jàng démb waxtu bu jotee ba toll ci jeex di tollook luy des ab rakka wala ñaari rakka ñu julli loola nga lànk sariya nee na lelli leen loos bi kii bu jugoon julli dañ koo forcé est-ce que julleem googu dañ naan waru ko bu ko warul lu ñuy lelee aw loosam kon fii coow ngi fii kon ñaari sart yi mooy yi koy tax a war mesure ak bañ kaa forcé waaye jàppal ni bañ kaa forcé googu coowa nga fa ñii nee ñu war ko ñii ni waru ko deuxième façon yi sart bi mooy sart yi koy taxa wér kese bula waree ba noppi déglul yi boo leen amul wérul boo jullee nu julli gi rafet rafet rafet rafet bay ba nga jullee ko ca buntu kaaba ga wérul loolaay lan yooyu juróom yi may bëgg a wax la ba ca jiitu mooy mbaa bokk nga ci lislaam waaw mën a goo julli julli gu wér di te duggoo ci lislaam boo ne mesure naa julli gi war na ma mais nag seen lislaam moom dama cee bokkul bàyyi leen ma fee ca diine jama neex mais nag dina julli suba ñaar ngeen di def dinaa def ñaar tisbaar ñeent ngeen di def dinaa def ñeent wérul ndax bokkoo goo ci lislaam da bokk ba noppi benn ngoog bi ko ñaareel ci tax muy wér moom julli mooy laab ci tojle dangaa tojle woon jàpp nga ndax toj mu ndaw la dangaa tojle woon toj mu mag sangu nga dangaa amul ndox tiim nga taharatul xadas moom jàngoon nañ ko am nga ko taharatul xadas moom danga koy am sinon julli gi du wér koy am ci tiim mbaa ci njàpp mbaa ci sangu mais jàppoo tiimoo sanguwoo te tajle woon boo jullee wérul laabug tajle googu nag bala ngaa kàbbar dafi nekk boo kàbbaree ba ba ngay sëlmal dafay nekk lan laa bëgg a wax boo amoon laabug tojle ba kàbbar sëlmala goo ñàkk laab ga tojle nga ci biir julli gi julli ga wérul yàqu na moo tax dañ naan laabug tojle bala ngaa door laabug tojle ba ba ngay pare boo ko ñàkkoon bul door boo ko amee ba door pareegoo faf ko ñàkk yàqu na ñaara ngoog ñetteel ba ci sart yi koy tax a wér moo di lab ci salte salte yi boobu ñu tuddee woon tëxëratul xabas ah da koy am de moom nag nee naa la bañ koy jàng ki mu war mooy ki ko man waaye mooy ki ko fàttewul boo ko fàttee waxuma la yére bee laabul nga fàtte ko bu julleeg moom waxuma la de julli googu wér na da nga ko fàtte yëri bi da ay la yéwén laabul mais ndox moo ko fóotee nga amul da koy sol julli de parce que da nga ko munta labal kon balaa war balaa nekk sart bi tax julli wér mooy boo ko fàttewul boo ko tëlewul ñetti sart ngo ñeenteelu sart ba mbokk yi balaa julli gee wér sa awra da nga koy muur de da koy sàng dinaa la wax buñ demee ci téere bi nan la détaillé awra ci góor ak awra ci jigéen awra mii nag buñ nee sart la mooy xanaa boo amee loo ko sangee boo amee loo ko sànge de waaye buñ la futtee ba nga set ñu tëj la ci néeg waxtu julli jot est que am nga loo sangee sa awra déedéet mu ndax da nga dul julli ah kay da ngay julli de kon ki muy sart ci moom ba tax julleem du wér lu dul da koo am mooy ki raflewul bi ko juróomeel ci sart yi koy taxa wér mooy jublu boori kaaba ga jublu boori kaaba ga moom la ñuy wax jublu xibla xibla nag olof rawatina fa kaaba ga féete daa tolloog juste fa jant bi fenke mu tuddee ko penku bi maana fa jant bay fenke eh, te ñi ëpp ci wolof rawatina ñi farewoo fii buñ ne penku fa leen jant di fenke foofa la leen kaa bëgg a féete mais am na koo xam ni moom fa jant bi di fenke kaa ga a féetewu ko foofu kooku boo ko ne penku ngay jublu amaana day wan kaaba gi ginnaaw kon kooku boo ko bëggee dimbali ni nga koy firi donc mooy jublil boori kaaba ga lan <laughs> am na koo xam ni jant bi ndeyjoor la koy fenqe moom kaaba gaa nga ca boori càmmooñam am na koo xam ni jant bi ginnaaw la koy fenke waaye kaaba gaa nga ca boori kanamam waaye am na koo xam ni fa jant bay sowe fa la ko kaaba ga féete waaye am na koo xam ni fa jant bay fenke fa ko kaaba ga féete te comme jubluwuñ ci jant bi mais kaaba ga lu nuy jublu moo tax danga naan rek ak jublu boori kaaba ga boori kaaba ga itam moo gën a neex a boo ne woon jublu ca kaaba ga ndax jublu ca kaaba ga day jafe parce que kaaba gi euh, mètre yu yam la waaye mos xam xam xam xam ngeen ni kaaba ga tollul ni diggante ndar ak ndakaaru déedéet yaatoowul noonu ab néeg la boo xam ni meetar yu yam mooy tolluwaayam kon boor ya nga mën a jublu waaye moo mënoo koy dàkk maanaam téeméeri nit bu ñu woon fii mën na ci am ñoñ dañoo jàkkaarloo kaaba gi juste mais dina ci am ñoo xam ni boori kaaba ga lañ jàkkaarlool mais jàkkaarloo wuñ ak kaaba gi juste loolu laa bëgg a wax moo tax danga naan rek jublu boori kaaba ga bu ko defee ka nekk biir baytilayil xaram bu mënee jàkkaarloo kaaba gi juste day jàkkaarloo kaaba gi juste mais ki nga xam ne nag génn na baytilayil xaram te léppi kaaba gi mënoo dàkk lépp boori kaaba ga dong nga mën a dakk kooka boor ya dong la mën a dàkk ndem ma nga màkk te mënta dàkk léppi kaaba gi xanaa boori kaaba ga lay dàkk ah, ku génn màkka waxee noppi boori kaaba ga nga jublu fa loola itam ci sart yi koy taxaw wér la bokk mbokk yi juróom yi bokk ci lislaam laab laaboog tojle laab laaboog salte salte yi ndem mën nga ko ndem fàttewu ko sang say awra ndem raflewoo jublu boori kaaba ga juróom yi mooy tax sa julli gi wér mu ni yi koy taxaw war wér nag mooy ñetteelu façon ngi sart bi yi koy taxaw war wér ñoom juróom benn sart yi la yii moom boo ci amul julli gi waru la comme waru la boo ni naa julli itam ba julli julli gi wéru la yooyu yana juróom benn yii bi ci jiitu moo di buluuxu daawati nabii sallallahu alayhi wa sallam yëg ni yàlla yónni woon na fi ku ñuy wax sayyiduna muhammadu jox ko diine ji ñuy wax lislaam lii boo ci amul benn information julli gi waru la ba gisul ñuy julli nga ni naa julli ànd ak ñoom si julli gi wérul parce que am na bu ñu tuddoon mu bokkoon ci koy taxa a wér muy lislaam yow yëgagoo ko comme yëgagoo ko duggagoo ca moo tax waru la waaye wéru la waru la waaye wéru la benn bi ko ñaareel moo di kooku daan nañ ci joxe exemple koo xam ne daa juddoo ci kaw montagne boo xam ni daanaka junni meetar la diggante suuf ak asamaan télé fekku ko fa rajo fekku ko fa déggul lenn ci àddina bi kenn fekku ko fam ne ndeyam ak baayam ma ko fa yóbbu ba mu juddoo fa waxuñ ko lenn information ci àddina bi moom itam wàccul dem fenn ci àddina bi nekk fa ba maseur ba doon magum jëm xamee ndeyjoor xamee càmmooy te amul benn information ci àddina bi gëmul ni keneen ci àddina bi am na fi kudul papaam ak yaayam amul benn information kii est-ce que julli da ko war déedéet bugg seen papaam ak yaayam ñuy julli xamul lu ñuy def mu ànd ak ñoom est-ce que julleem googu day wér déedéet te li mën na ne xoolal ñaareelu sart ba moo di am xel boo ko amul julli gi waru boo jullee julli gi wéru xam nga dof bi ñëw ci jàkk ji fekk ñu sàppe mu ñëw taxaw ci sàppe bi ñu kàbbar mu kàbbar <laughs> ñu rukkoo mu rukkoo lu ñu def mu def ko ba ñu sëlmal mu sëlmal est-ce que naan def bi juli na déedéet est-ce que gi da koo war déedéet kon kii itam waru ko wéru ko kon daa bokk ci koy taxa war wér am xel bi ko ñetteel mbokk yi mooy mbaa waxtu wi jot na mbaa waxtu wi jot na fi may waxe ak yow maa ngi ci xaaju guddi maa ngi ci trois heures ci guddi ñi nga war a julli suba cinq et quelque est-ce que fii mu ne nii mën naa sawara sawara sawara sawar ba julli suba déedéet ndax fi ne nii julli suba dama war déedéet kon bala ma war waxtu wi daa jot waaye bala wér waxtu wi daa jot kon daa bokk ci koy taxaw war wér waxtu wi jot bokk na ci koy taxaw war wér am loo mën a laabee loolay lan boo tojlee toj mu ndaw loo war a laabee am ndox nga jàpp boo tojlee toj mu mag loo war a laabee am ndox nga sangu farata boo amul ndox looy laabee pàkk bu laab booy tiime léegi nag yow da nga amul ndox amoo pàkk bu laab boo tiime <laughs> amoo ndox amoo pàkk bu lab tiime kii laa la ni woon moom la gaynde gi dàqe ji ba ca kaw garab ga mu yëg ci kaw garab gi gaynde gi goor ci suuf di ko xaar waxtu julli fekk ko fa est-ce que ndoxo nga foofu ca kaw garab ga déedéet est-ce que bi muy yéeg yóbbaale na fa njàpp déedéet est-ce que xobi garab yi wala car yi wala bànqaas yi mën na caa tiim déedéet kii nu muy def ab laaja ngoog kii daa amul lu laabe moo tax kii julli gi waru ko bu noon naa jullee nii julleem nga wérul kon bokk na ci yi koy taxaw war wér am loo mën a laabe am loo mën a laabe boroom xam-xam yi mazhab bi ñi ngi cee werante ñu naan day julli noona bu ñibbee fay <laughs> ñeneen ni déet moom koy comme day julli julli ba noppi deeti fay wax leen leneen ña lànk lank am ñu ni déedéet bu jullee noona de waaye bu muccoon ba dellu këram day fay ñooñu moom ñooñu waru ko foofa euh, waru ko jullee foofa waaye nag war na ko saa bu ngant lool teggi ko dafay fay ñu tuddee loolu ngant gaynde gu gu lay xaar ci taatu garab gi moom mat nab ngant waaye ña lànk lànk jooju wax am ñu ni déedéet moom du julli de waaye bu demee këramit du fay loola nag moo ci gën a dëgër ci jooji la imam malik bi nafsihi jàpp booba nag ca la wax ji ko parce que kii amul lum laabee julli gi waru ko bu julli woon noonu julli ga wérul comme waru nag bu paasee doo ko fay bu paasee doo ko fay dof bii nga ne julli waru ko boo waxtu paase mu mu mu mu xelam ne cocc est-ce que day fay déedéet parce que ba muy jot ko koo waruloon wa kazalika kii itam imam Malik nee na julli gi waru ko kon bu paase ci état bi fay ko waru ko am solo loolu la yaaram ya tënke woon ci fa man lam yajid ma an wala mutayammama fa arbaatul aqwaali yuxkiina mazhaba yusalli wa yaqdi aksu ma qaala maliku wa asbaru yuqdi wal adaau li ashhaba ñeenti wax la malik ci boppam dani kii julli gi waru ko du julli foofa comme waru ko foofa bu wàccoon ba ñibbi du ibnu qasim taalibeem la ni noo kii daa war a jullee noona na mu mane waaye bu ñibbee day fay nga xam ne moom waxi Malik ji la la la safaanu complètement Malik ne du julli du fay Ibnu Qasim ni day julli bu ñibbee day fay loolu la ni yu salli wa yaqdi aksu maa qaala Maliku kon yu salli wa yaqdi Ibnu Qasim a wax safaan ba nag maa qaala ku mag ci ngir mi ku ñuy wax imam asbagh moom moo ni ay la yëwan du julli noona du julli de waaye bu muccoon ba ñibbi waxtu woowu da koy fay keneen ci ponkali ci ngir mi di ashab ni noonoo du ñibbi di fayante de foofa lay jullee bu jullee rek wàcc na ko ñeenti wax yi yëpp ñi ngi ci biir ngir mi waaye ba ca gën a mooy ba ca Maalik wax rahmatullahi alayhim wa radiya mbokk yi juróomeelu sart bi ci yi koy taxaw war wér mooy nekkoo di nelaw waaye itam fàttewoo ko waxtu wi nga xam ni bi muy jot dalaa fekk ngay nelaw bam paase yeewu woo doo am bàkkaaru faat waxtu de déedéet parce que kii nelaw dañ koo teggil xalima boo yeewoo fayal nag fayal googu feneen la jógee ñu sant la ko waaye tekkiwul ni ba ba ba ba ngay nelaw dalaa war déedéet bu doon war am kon kii ci biir nelaw yi mënul sax julli parce que waru ko waaye bu julli woon sax te mënul nekk du wér mook ki ko fàtte ñooyam nee la ki nga waxtu waxtu la day dugg ci l'islam par exemple wala mu dem ci dëkk boo xam ni jullit ña bariwuñ fa am nodd gee ko doon fàttali julli wala mu gis kuy julli dem ci dëkk boo xam ne jullit newu fa nodduñu gusul kuy julli kii mën na fàtte waxtu bi jamono ji nga ko fàtte fekk yaa ngi ko fàtte waru la comme yaa ngi ko fàtte itam xam nga ni mënoo koo julli waru la juróom benneel bi ci yi koy taxaw war wér mooy soxna si set na ci dereeti mbaax set na ci dereeti wasin wala boog donte deret yaa nga fa mais sharia nee na set na waaye feek tolloo ci étape bi xana yaa ngi gis mbaax wala yaa ngi gis dereeti wasin julli warula la waru kay waaye boo sawaroon ba julli julli gi wérul kon daal ci tënk juróom benn yi koy taxa war wér yëpp ngi ni yàlla yónni woon na sallallahu alayhi wa sallam jox ko lislaam yaa ngee kum xel waxtu wi jot na am nga loo mën a laabe fàtte woo ko nelawoo set nga ci dereeti mbaax ak dereeti wasin mbokk yi façon yi sarti yi nag la sëriñ bi Seex Seydi Abdurahmaan al Axdari tënk ci buntam bi mu tuddee faslun fi surooti sala bunt ngi buy bëgg a jàngale sarti julli ñu ni ko bismillah mu ni wa surutu salaati sarti julli bokk na ca taharatul xadasi labuk tëj le war ngaa xam ci ban groupe la bokk da koy tax a wér wa xabasi ak laab laabuk salte détaillé naa yooyu yëpp laabuk salte yooyu nag mi ngi concerné minal badani sa kaw yaram nii wa sëw bi ak yére yi ci sa kaw wal makaani ak place bi nga taxaw ci kawam bokk na ca sart ya wa saturul awrati ak sàng ay awra danaa la wax léegi lanay awra ci ku góor ak ci ku jigéen mu ni wastiqbaalul qiblati ak jublu boori kaaba ga mu ni watarkul kalaami ak bàyyi wax ju bokkul woon ci julli gi wa tërkul afaalil kathira ak bàyyi jëf ju bare ju bokkul woon ci julli gi ñaar yi nag tudd na ko boole ko ci sart yi waaye alal xaqiqa yii bu dee tarkul afaalil kasira ci faratay julli la bokk ndax daañu àgg léegi ci faratay julli dana la fa tuddal ni degg boo taxawee di jàng fatixa wala saar taxaw doo ngay def do doxlu do wengulu do do do do boy ruko nonu boy jot non bo toge non waye da nga taxaw di jang sar lul taxaw bul ko ci boole di jatok di doxlok di dengulok di teenak yoyu jëf yu bare te bokul won ci jëfi julli gi lolu farata la nga bañ ko ci boole nga def rek ni gegg bu ñu àggee ci faratee julli dana gën leer te comme dañ ni woon sart avant li ñu sartal di am lay sart di am ba noppi kon du ñu dem ba ci biir li ñu sartal ci biiram ñu fay fekkaat sart xam nga li bëgg wax defe na te bàyyi jëf ju bare ju bokkul ci julli gi ci biir julli gi lañ koy sàkku wax ju bare ju bokkul ci julli gi moom itam julli gi dañ ci xamone fatiha ak euh ay tasbiha taaya façon yi wax yi ñu xamone ci julli xamees nako ko léegi ngay waxat ci bir julli gi wax jo xani bokul won ci julli gi lolu ñu ni sart la dedet mi ngi ci bir julli gi mënul mënul tuddu sart nan lay tuddu ci farata yi lay bokku baña wax ci julli gi lu ci bokul, lolu ci faratay julli la bokk ci ponk yi julli la bokk ndax buur subhanahu wa moo ni woon wa quumu lillahi qaanitiin ay qaanitiin yàlla képp ngeen di xerewlu lu ngeen di wax yàlla ngeen koy waxal ci biir julli gi moo amoo droit di kàbbar di julli soxna si ni la ana almet gi nga naan ko mi ngi foofu ci kaw coiffeuse bi julli gi day yàqu donte julli dana dem ba àgg fof ndax julli dana àgg fof wax fa ci boppam mooy dafay julli gi waaye buñ waxul rek julli gi yàqu julli gu àggati foofu waaw wax balaa julli gee yàqu farata la loolu boo toppee téere bi ba fa muy jeexee dana la gën a leer waaye wax joo xam boo ko waxul ci biir julli gi bàkkan dana rot léegi donte ya nga julli mais bo waxul ay am de wax gogi farata la da ngay kabar di julli seen xale bi mu ram jëm ci and bi nga su fotosu su ken degula ku meuna ñew randal and bi mba mu jël xale bi noy def da ngay àggale julli gi da nga nan kay jël xale bi mi ngi dem ci and bi te continue sa julli wa illaa ñu ne la daggal julli gi yàq ko te dem jël xale bi mbaa nga ràndal ànd bi bu ñëwee nga kàbbarat foofu julli dana fa àgg moo tax lii ñaari ponk la yooyu tudd na ko ci bi muy tudd sart mais nañ ko boole ci ponk julli parce que mi ngi ci biir julli gi waaye muntu tudd sart parce que sart dafay nekk xaaliban xaarijal masruuti léegi nag dégg nga fi laab ci tojle laab ci salte salte yi sàng awra jublu boori penku mu ni ak bàyyi wax ju bare ju bokkul ci julli gi ak jëf ju bare ju bokul ci julli gi loolu loolu mu tënk am na ci lu ma la détaillé léegi nañ dem ci awra googu muy sàngulu luy awra mu ni wa awratu rajuli awra ci góor ma bay na surrati mooy la ca diggante jumbux ba war rukbati ak bëti woom ya waaw waaw ah góor nag bu amee lu sàng diggante bii te sàngu ko bu jullee julli ga wérul diggante ban jumbux bi ba ci bëti oom yi maanaam jumbuxam moom góor li ko féete suuf ba ëmb ay oomam fii moom daa wara a ndem am nga lu ko mën a sàng bu amé ci digënté bi lu sànguwul te mën a yow loola julli wo ndax lan da nga bayyi sart bo xani bu amul julli gi wérul té mën nga ko mën ngaa sang sa yamara ar mol ngi ni fess del ngi fi donte yëre bu bu bu bu tak sobe la ndem mo fi ne dang koy sol te sang sa awra mo gën nga baña sang sa awra nan awma lu awma déedéet da ngay sàng foofu nag naa fay faral di soñu sama gaay yi borom kiris koros yi da ci gis koo xam ni kiris koy yóbbee bu sëggee di rukon wala mu sëgg sujjóot da ngay gis toogukaayam ci biti te foofu ci awra gi la bokk maa benn surati wa rukbati fa la toogukaay nekk kon bu sàngewul te mën a sànge tubéy jaa ngi nii yaa ko takkul yaa ko wutalul geño yaa séeréwul ceinture gi xanaa takk ko ci sa suufu toogukaay yi booru konwee toogukaay yi di feeñ yàq nga góogaw julli parce que mën nga ko sàng yaa ko sàngul awrey góor a ngoog daa war a sàngee mu dellu ni wal mar atu jigéen nag kulluha léppam awratun awra la jigéen nga ne ko a ah, mu ne la <laughs> nga ne ko a ah, mu ne la maadal wajha lu ca dul xar kanam ga wal këf fëy ni ak ñaari tenq ya ah jigéen nag na sàng fépp mais nag jël morso gaas di wàccee ci bëtam moom ak teengal la waaye mën na bàyyi xar kanam ga noonee dégg ko même buy feeñ ci biir julli tuddul amra yàqul sa julli kon xarijal julli itam sëñ bi mën naa feeñ jarul mel ne Nimzaat dégg nga ko mooy zeekatu film boobu di maskaw laa ci jublu ñaari tenqam yitam mën na feeñ foofu muy takk lam ba ci catibaaram yi bu bu buy feeñ ci biir julli gi yàqul julli ndax du awra lii lu dul moom ci jigéen daa bëgg julli day sànge ndem am na lu ko mën a sàng bu amee lu ko mën a sàng te sàngu ko bàyyi na sart buy tax julli gi wér comme bàyyi na sart ba te mën na ko julli gi wérul na leer soxna si bëgg di julli na fexe ba am yére yoo xam ne bu ci ne malaj léppam dana sàngu bu amee luy feeñ xar kanam ga lay doon ak i tenqam waaye di julli sa mbagg ne ci biti di julli say concu nekk ci biti yow jigéen di julli sa dënn ne ci biti yow jigéen di julli saw loos ne ci biti yow jigéen di julli sa yel di feeñ yow jigéen te yii yëpp mën nga leen a sàng yaa leen sàngul bàyyi nga sart buy tax julli gi wér comme bàyyi nga sart ba julli gi mënul wér soxna yi baax na lool façon yi col yi ngeen di sol bare nanu lool waaye yu néew ci mën a julli kon li jaadu woon mooy am yére spécial boo xam ni jullee leen di boole bu julli jotee ba nga jàpp ba noppi nga génne ko ndànk dugg ci julli ba sëlmal lemaat tëjaat ca sa armoire bay julleeti booy dem xew noonu boy gamuji, ji magali, màggali fo mën jëm ci sap sak ya nga ciy duggal <laughs> boole ci li mo gën nga sol dagit yi dem xew waxtu julli jot ngay ab kol defeni kol meuna sang ba sang say yel te ci ñooñ seen yel yi hmm gënul de dem xew bu la jarale fat waxtu dem xew aram lu nara dox sa digënté ak farata loolu day aram na leer kon awray góor war na la leer awray jigéen war na la leer loola laa ni daa war a sàngu ci la daldi ni wa tukrahu sib nanu nag asalaatu jullee fi saraawili ci pantalon illa ida lu dul daa nekk fawqahaa ca kaw pantalon ba say un dara góor goo xam ni nee ko jumbux bi ba ci beuti oom yi li da wara sangu ndax awra la mu ne ah, comme li do ngay awra dal suma ma ben ben ben kilot naa ko tuddee kilot comme yoyu footballeur yi du sol ci teere ba nga acc ko bam rombu jumbux bi te momit wacc na ba rombu oom yi lii nga sol di julli nga xani ni kon awra ji mom sanguna nga yam ci lii sib nañ ko sib nag mooy sa julli gi rafetul de donte wér na mbaa bu wérul it sàng sa awra moom teewu ko wér liñ tuddoon ci yow muy awra sàng nga ko mais say mbagg nga ci biti sa dënn ngi ci biti sa ngi ci biti sa yeele ngi ci biti lii lañ sib kon dañu bëgg nga teg dara ci kawam bu dee am nga lu mel ne semisu alaaji nga teg ko ca kaw mu wàcc ci mbagg ya ñëw ba romb oom dénk ko wala nga am sa euh, xaftaan buy mel noonu wala nga am sa simis wala teset bu ñëw ba ci ndigg li nga amaat beneen pantalon buy wàcc ba ci dojor yi ay ca lii kay gën a jekk alquran ne woon nañu xuzu zinatakum inda kulli masjidin fu ngeen mën a jëm di sañse ji ngeen sañse woon dóora jullee ko gën kon bul julli di di di di di di eh, bàyyi sa yaram noonu ci biti te mën koo sàng mu daldi ni waman képp koo xani te najjasa dafa taq sobe saw buhu ay yéreem yi mu sol bëgg jullee ni daa taq sobe te nee nañ ko taaratul xabas sart la ci julli gi wér moom nag yéreem bi taq sobe walam saw ban xayrahu amul beneen budul bii wala mejit te amul saw ban ab yére xayrahu budul boobu taq sobe walam yejit te amulit maa an am ndox yaxsiluhu bihi bu mu mën a raxase yére booba yére bi taq sobe amoo beneen budul bi waaye amoo ndox it moo ko fóote walam yajid sawban xayrahu walam yajid ma yaxsiluhu bihi aw lam yakun wala sax am na ndox de waaye daa amul indahu foofee maa yalbasu beneen bum mën a sol xataa yaxsilahu ba mën koo fóot benn yére nga fi am moo tax sobe boo ko doon fóot da naan dungu ba noppi ni copp ba mu wow wala ko sol ko noonu ci noonu mu tooyee faf nag beneen boo sol ba mën a bi kooku nan lay def waxaafa te ragal na xurujal waqti pasek waxtu wi kaala de benn bii moo fi ne daa sobe ndox mu ko mën a fóot amu fi bu dee ndox a ngi fi itam buma ma sol ba mën koo summi fóot amu fi te waxtu waa ngi nii di dem kii jaaxle na di nan lay def sariyaan nee na kooka sallaa na jullee bi najaasatihi ak sobem soos si takk ci yéreem boobi gis nga de gis nga kii duñ koni ni summi ko te jullee yaramu neen nan lay def da koy sol doonte sobee ngi ci te julli moo gën solu lu laab sàngul amram bàyyi benn sart ndax mënoo ko moo gën bàyyi ñaari sart ndax mënoo ko xam nga li bëgg wax xam nga sàng say awra sart la li koy sàngee du lu laab di sart léegi kon bu fekkee ne da nga ni bii laabul naa ko summi defoo sàng say awra defoo sàngee ko bu laab su boobaa kon nga jël bii donte daa takk sobe sàng sa awra xanaa kon ngant sart bim la xañ moy rek na laab te laab gi newoon naa la ba muy doon farata mooy boo ko mënee laabal waaye itam boo ko fàttewul a laabal kii nag da koo mënta ndax ndox amu kii ni muy def mooy salla bi najasatihi sobem si lay julliwaale bàyyil xel nag ni kii taxaratul xabas mooy problème ñu ni ko julleewaale ko waaye bul mës jàpp ni taxaratul xadas la xadas moom am ko rek mbaa doo julli wax naa la ay waxam mu daal di ni wala yaxillu daganul ci menn mukallaf te xiiru salaa mu yéexe julli ba waxtu wa paase li adami taharati ndax rek ni dama amul yére bu laab bu ma sol li adami taharati googu itam jàppal ni xabas la ñuy wax waaye waxuñu xadas de daganul nga naan laabu xabas laa amul amul ba waxtu wa dem laabul xabas ba naan laa am ko mooy boo ko mënee bu dee mëno ko te waxtu waa ngi nii di dem dañ naan laa jullil donte amoo ko waaye boo nee damay xaar ba am ko ba faat waxtu wi rek nee na woman waman faala dalika ku def loola faqad asa rabbahu na ku wóor ni mooy na boroomam subhaanahu wa wax na la kon ki nga xam ni daa tële am taxaratul xabas keneen a ngi nii ko xam ne daa tële lu sàng awraam kooku nu muy def koko la la ni waman lam yajid ko xani da amul ma yasturu bihi awratahu lumu mu awram ay le yewen dañ ko futti bam ni dung ñu dugal ko ci ab ruq waxtu julli fekk ko fa mo ndax ki amna lum sol dedet mo ndax ki julli aha kay nu muy dafay julle xuryaanan ci krafle non mu ni dum non non lay julle waaw julle la go xani mom moom dem jakka ja mom ku amul lo sol te da ngay julli bu sawar ak bëgg yiw mukk yobbu dengo jakka ja dengo mom dal wutal bu amon làmp sax fayal te julli bu ngeen dee mbooloo sariyaan lépp leeral na ko yéen ñëpp ngi nii kenn amu ci lum sal te da di julli sariyaan nee na fay leen làmp yi ñu ne ko day guddee bëccëg la di tisbaar la ñuy julli tàkkusaan la ñuy julli kii jarul fay làmp jant baa ngi ni dàng sariyaan ni gëmm leen ñu gëmm mu ni sàppe leen ñu sàppe mu ni imaam bi fi muy taxaw ñi ci des ñëpp nañ taxaw ci ndeyjooram fii moom amul imaam ca kanam ndax julli goo moom kenn solul yére moom imaamam du yomb kenn du ko nangu sariya nee na imaam taxaw nii rek ci sàpp bi ay mbooloo mi ci des ñëpp nañ topp ndeyjooru imaam su boobaa dooni kenn ngi ci kanam ñëppay àndandoo benn yi daal julli yàlla buñ ko yàlla nattoo waaye am na dal de maa la ko wax. sunu mbokk yee ci Birmanie de dañuy dund lu mel nii yàlla yàlla teggil leen ko bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa keneen a ngi nii ci ñi mu doon tënk te jotoon naa la ci détaayel aslëf muy ki nga xam ni dañ ko ni woon jublul boori kaaba ga sarte la ci julli gi wér waaw kii nag ay la yëwén boor bi mu jàppoon ni fa kaaba ga nekk ba julli bimu mu sëlmalee ay li yéwén xam na ni boor bi mu di julli non du boor yooyu la kaaba ga nekk xanaa kon daa bàyyi boori kaaba ga ci ndeyjooram baa bàyyi boori kaaba gi ci càmmooñam kooku nag lay bëgg a wax ay atteem soo paree wax la atteem ki bàyyi kaaba ga ca gannaawam <laughs> wa man axtaa ku moy mooy ngay wax alxiblata boori kaaba ga da koo bàyyi ci ndeyjooram da ko bàyyi ci càmmooñam kooku mooy ki nga xam ni aqta alxiblata daa mooy boori kaaba ga ba julli na ba pare nan nan lay def aada day bamtuwaat julli googa fil waqti ndem waxtu wa weesoogul war ngaa xam waxtu wu ne fa muy weese kon julli gi nga xam ne julli nga ko te yow bi nga koy julli ndekete kaaba gaa ngi ci sa ndeyjoor wala mi ci sa càmmoñ ah julli googee ndem waxtu wa paase wul bamtuwaat ko loolu xanaa leer na lii mooy ki bàyyi kaaba gi ci ndeyjooram mbaa ci càmmoñam waa ki bàyyi kaaba gi ci ginnaawam nag kooku ba déwén ba deux mille quatre vingt dix <laughs> wax saa boo yégée ni waxtu sàngam ba ma koy julli damaa wan kaaba gi ginnaaw waxtu woowu danga koy bamtuwaat jullee goo ko ki bàyyi kaaba gi ci ndeyjooram wala ci càmmoñam julli na mais damaa sopp mu baamtuwaat mais ki bàyyi kaaba gi ci ginnaaw moom daa julleegul kooku force la daa war a baamtuwaat googee julli loolu xam naa ku dem mi ngi bëgg leer léegi nag mu bëgg a tëjee benn qaayida boo xam ni xam ko looy gën di continuer di jàng téere yi qaayida bii da nga koy gis dafa dellusi mooy lan wa kullu iaadatin fi l waqti fa hiya wa kullu iaadatin géppug baamu goo xam ne sant naa la ko nii la baamtu ko moom julli googa fi l ca waxtu wa léppi baamu mu ko ci waxtu fa hiya moom baamu googa fadilatun ngëneel la du farata de foo déggati ma ne la julli googu nañ ko baamu ci waxtu wi jimmi baamu ga ngëneel la julli ga daa wéer moo tax maanaam la baamu ko ci waxtu wi waaye bu wérul woon baamtu ga du ma ko tënk ci waxtu ba faw lay wax su boobaa baamtu ga farata la kon baamtu goo déggati mani la ci waxtu wi lees koy baamu fa hiya baamtu googee fadilatun ngëneel la nga ne ko loolu leer na mun la wa kullu ma tuaadu minhu salaatu fi lwaqti fala tuaadu minhu lépp loo xam loo xam ni tuaadu minhu assalaa fi lwaqti des cay baamoo julli ci waxtoom fala tuaadu minhu lfaita bu waxtu wa passé dootuñ ko baamu ah kay dama ne leen di baamtu ko ci waxtu bi waxtu wa passé na bul baamu waxtu laa la wa kullu ma tuaadu minhu salaa lépp loo xam ne des na ca baamtu julli fil waqati ca waxtoom wa fala tuaadu minhu loola kenn du ca baamu alfaitatu bu waxtoom wa weesee tisbaar laa la wax tàkkusaan laa wax ne la baamtu ko ci waxtu wi timis jot na bul baamtooti waxtoom jeex na mu ni wan naafilatu lépp loo xam ni itam dañ naan la baamtu ko ci waxtu wi day farata waye bu lolo doono naafila kenn bamtu ko bal donte sax waktu waxtu wala nga julli Bar di ci tek ñaari raka bi nga ci tege ñaar raka ngay door i man de yere bu ma sol julli tisbaar ndekete labul sariya nee na tisbaar gi bamtu ko ci waxtu wi comme waxtu wa gul te moy timis jotagul tisbar gi sopuna nga bamtu wat ko lol leerna mais ñaar rakkaa yi ngi ci est ce dang koy bamtu dedet ndax lan naafile la mom ken du ko baamtuwaat leer na xanaa wa kazalika ndem ci waxtu la waxon timis jot do to ko bamtu du du tisbaar ga du tax ko sanse ba timis jote passé nañu man ci waxtu la wax mbokk yi nañu tek fi sunu baram buntu bi mo don sarti julli ba dellu siwaat incha allahu taala continuer ay wax ci julli lu ci jub ñu sante ko yàlla lu ci dëng ngeen jéggal nu ko mën ngeen a di topp daara ji di suivre darsu yi ci daara yi Seydil Hadji Malick page Facebook bi daara yi Seydil Hadji Malick si seen YouTube bi daara yi Seydil Hadji Malick si seen Telegram bi wala ngeen jokkoog sëñ Mouhamed Ndiaye mu Serigne Mor Diop borom 77 227 76 99 yal na yàlla dolli ko jàmm dolli leen ko dolli ñu ko dolli ko mboolem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu